sagi bi ne ñu ngi ubbi ko ci bismillahi rahmaani rahim tey ñaan yàlla ci barke bismillahi rahmaani rahim suñu jotaay bi yàlla ka yàlla nangu barkeel ko lépp loo xam ne ñaan nan ka bi yàlla ka borom bi nangu sunu boroom ñuy ñaan nee na mu gënu ba nu sottal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin nee na altine jooju imaam saxir wax dafa ñëw ci ñaanam gi tey guddik altine gis nga guddi gi la ñuy jiital bu génnee àdduna ci bëccëg gi dimanche ja sa guddi ga guddi gi la ñuy jiital waaye ni ëllëg la Seydina Babacar génnoon àdduna muy altine kon suñu ñaanam gi si biir feebar bi mu tombeek bisamba ñëwaat yàlla na yërmande ci ñun ñëpp di yërmande ci réew mi di yërmande ci àddina bi yàlla jële ko fi manu appel amin yàlla mën na ko dañu kaa bëgg nag dañoo bëgg appel yàlla na sunu borom fekk si sunu bëgg xam naa fi mu toll nii laan bu ne yaa ngi sëngeem jaaxle nii nii comme bu may waxi muñ <laughs> ñu ngi nii rek kii di lii <laughs> déedéet ni ngeen ko bëggee wallaay du karaw ñu ñii seen i bàyyi seen i sang moom daal laay am borom nag tekk déglu ko rek. ànd ak sunu borom nag tekk déglu ko. waaye ñun gëm-gëm boobu. waaye am. xanaa sax dinañ fa daje sax yàlla yërëm nu. bisub ajibu daaye laa. damuy oote. juróom universe ay gaw sol lu weex tàll ñii nooy ñii nooy ñii nooy لأمتي ولرسولي ولله الأمر ولرسولي ولزتي ولله kon ñu jàppil na woon démb mooy tey rek xam naa fi ñu toll julli ñu toll woon nañ fa sa coono wallahi ay waaye kañ la ndimbalal yàlla di ñëw nag kon nag toll nañ ca xaribam jooja nag ah yàlla nay yàlla nay appel bi xam naa ne fi mu ne sonn ngeen de. ah ñun ñàkk ñoo yëg seen coono de. sang bi de ñàkk ñoo yëg seen coono de. wallaay ñu ngi ëpp coono. waaye ni ne tekk ba gaa yi leen di kii doxuñu ci loolu waxuñu ci yooyu parce que euh, seytaane bu lu mel nii bu amee rek kenn ku ne sa xel day jax day jax jax ñun di lu ñu kenn dama bëgg ma la kenn dafa lu ñu dara la ma sëriñ daan doon wax yàlla leen yorob seen bàq kenn su maam moo waxoon situation bi mu ñëw ñu muñ ca toog xaar mais dañu teree yaakaar nag ndax dañoo tay la suñu ngëm daaw yàlla buñ ko tay la ren te dinañ si dogu nag ngi wax di ngeen du dégg la daal di ngeen du dégg ci ay fan yu néew waaye na leer ci bopp yi ni fii ni ko kenn fekku na fi mënoon nañoo toog yuuxu ci tubaab yi nag ne kenn ñëwul ci ñoom xat xaw loon xat xaw xat xaw loon xat xaw ak kenn fa mu dëkk amul fenn fu ñu dem dafa xat xat loo bu ñu xatee rek dañu xat xat loo ak noonu kon ñu ñu ñu waroon a considérer lañu waaye nag waa kër Rasuul bëgg mu leer nag te carré bii danoo teg diko mudjal yalla waye waaye waxunoo ken kenn seet suum kenn seet suum dama ko ba sama xol tooy parce que dama ko gëm te bëgguma ngeen bàkkaar suñu ndax dañoo weddi bay lay bëgg leen bakkar nah, bàkkaar loo si ak bay lay dil buñu def nak ngir bañ adina dégg baat bi yalla وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ci lañu nekk bu ko yàlla jéexalee day fekk ñun suñu yéene ñëpp nga xam ne noo ko bokkandoo suñuy bëgg-bëgg noo ko bokkandoo dogu ci nag mu jaral na lu ne waaye ay nit dong lañ qul innama ana basharun mislukum yuuxaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahid am nañu kilifa Doudou Makhtar a ngi fi maam Basiir a ngi fi man ñuy génn maay seen mag waaye réeroo maag samay rak réeroo ñoo doom yi réeroo ñu groupement central ak association yi yëngu si biir ndax su ma yemee foofu rek dem ñu ba pare ba pare ñu ngi ñuy jéggi lu dem fu ne di wax ak ku ne mais na leer ci yéen laay ni moo tax bëgg a génn diñ ngeen fier ngeen lu dégg ñu jàmm yaakaar ñu leen yàlla la ñu yaakaar am yàlla yàllaay bon ñàkk yàlla yàllaay dama bëgg loolu leer ci ñëpp kon nag lii daal waroon naa ko wax fale ko mu génn ci sama dënn laay seeni xol féex ñu bañ a accuser Mamadou waaw ba ren du benn autorité bu fi ñëw boo xam ne nga waaye bu ñu ko doon def ñun laay ni ñoo koy defal sunu bopp soxlaa ñu kenn fekkam si bu nu sa eggee nañ ko def bi sa jaayante wan sëy naa limaam ni mu toll suñu loolu laa bëgg koy wax loo alam nashrah laka dënn yi dañ bëgg mu féex ndax kumpa mu ngi leen di rey xamu leen lu nu tooge dama nga seen jàmbatu ñu waxuñu a nu ngi toog rek waaye di lu ñu kenn na dama bëgg mu leer lépp dañ naka pour yàlla musal bu ñu musal dafa tax mu um leen ba kenn jaaru suñu kenn ñëw fi du si man du si maam njënd ci imam bi tax du per te nu nooy rek sa ñëb du si duudu du si basir ah, bëgg na nag di aaloo ndax boo nu aaloo xëy na ko nekk man ngaa rek noonu la nekk waaye nag lii dëgg rek nañ ko wax demee ba egg si nga xam ne nag yàlla ànd na ak si suñu pas-pas laayin bépp laa bëgg la sëy naa isaa doon doon wax ba muy tabax jàkk ji mm. nekk ko dul ak taali bu si duggal loo xam ñu laay bu nu sa eggee laayin si la nuy xam ndax yéen gëm leen bàyyi la yow gëm leen bàyyi gënal nga nu sunuy ndey gënal nga nu sunuy bàyyi te yaa gën sunuy maam gënal ñuy julli wa minhum rusula اصطفى بنا الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق بنا الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sama baay ibnu sa caaray ibnu mu nekk alaay mu nekk alaay bu dem mu ne ko ah, bàyyi ndox mu ne ko laay ñun ñii ñooy seenam ndox doon jéem a fay tàng-tàng yi ci dënnee xol moo tax ñu dem ceeg aal ak xër waaye nag ngeen xam ne ñu dal lañu ngeen xam ne noonu lañu bëgg ngeen dal ñu am kilifa lañu ngeen xam ne noonu la ñu bëggeen yéen am kilifa njàngata gañ ci wax ji waaye bu mu tax nag ñu emporté wu ku nekk bëgg dem say dem bopp wax sa waxi bopp def sa defi bopp tekk di déglu suñuy kilifa li ñu fa wax mooy suñu yéene di seen yéene lu wér di suñu mébét di seen mébét waaye lu ci sotti yàlla li nga xamne wax nan ko fi li nu ci yene yarit bañu yaké ko sunu te xam nu rek di di tëddaak yow ak lekk ka naan rek fàttali dedet di sédel ni man ki ngeen nu lol ndax li dox sunu digganteex yeen doyul buñu sayon saa lok seeni jëmm yee ya nañ ko daan defee fi jàmbala feebare nonu di at yi it dañuy feebare non di pause bii tey yàllaa ko def yàlla nag lu mu def rek xam na lu tax mu def ko waaye gis nga atta anni min allahi wal ajalatu min asheytan nee na dal yàlla la àndal waaye nee na yàkkamti seytaane la àndal yàlla bu nu ànd ak seytaan teg xayru xalxilaay muy seydina li kenn mënu ko def wallahi azim ñu jaayante ak moom bu nuy wéet nanu mat li nu doon bu nuy wéttalu ko it nanu mat li nu doon te nag góor gi bi mu jàngalee doom ji xam-xam dafa jël ak bale naka dama bëggoon nga dammal ma bale gi doom ji jël bale gi jël bale gi mu tekki bale gi mana ko tas ko mu tas ko mu ne ko dammal benn par ben mu dam ben par ben ma ko mu ngi non fii yeena ngi bolo ken manu len dam waye bu ngeen tasaaroo rek ñi damat len ben par ben kon fofu laay nek na nga bayyi loolu ci sam xel fofu julit nek bayyi loolu sam xel ndax bayyi lay moy sangub jamono moy sangub mom la yalla waxon ni wa ma illa rahmatan lil alamin sunu ñaan na ba fa sa bopp ku ne ma da nga faa mën ñëw nëbb sa sa bop fa ngay dem ñu naan mu nga wala moytu len ke fi de ku fi ñew man nga fe nëbb sa bop ndax kërëk yalla motax nu delu nu lolu waye di len fatali ne lu ci wara am rek lay dina nu gennat wax ak yeen ñu andak ak dal xam ne laay nun yar rek lan nu xamee nu moytu kenn ku ne rek lu la neex wax fu la neex waxee nu ñëpp tënku ci kilifteef mm-hmm. su ngeen nu dimbalee ci loolu rek dañuy am benn assurance suñu bopp mm-hmm. mais kilifa boo ko cofee rek mu wadd mm-hmm. te li may wax ne taalibe mën na daanu sëriñ yëkki ko waaye bu sëriñ daanoo kan moo koy yëkkati taalibe bu daanoo sëriñ mën na kaa yëkki waaye bu sëriñ daanoo ku koy yëkki xale yi toj laket nag waaye mag a kay ñaw ay xale lañu waaye dañu fi toogal ay mag xale nag fu mu toogal mag bu ko xool bëtub xale mag la